gis nga ko bon takk ku baax dara newu ci wala ku baax takk ku bon dara newu ci nit ñi dañ leen war a boole pour ñu defarante ki gënoon a bon ci jamono mooy Firawna takk na jabar joo xam ni moo gënoon a baax ci jigéen jamono jigéen ci jigéen ñi gën a baax ci àdduna ci la bokk mais kazalika yoon ci yàlla noonu mi gënoon a baax ci jamono ak yoon ci yàlla luut mi a baax ci jamono mais seeni jabar dañoo bonoon c'est-à-dire mooy loolu bu ñu ko man sax li ma gëm mooy Pape Hann dinaa ko wax ne takk mbaatu. billahi dinaa ko ne Pape Hann takk. yow a man coow li su ma naroon damay takk mbaatu même su takk Pape Hann takkal mbaatu man maa ko wax. mais imam li yëpp waa léegi liñ ko doon waxal dëgg la après sénégalais yi ñooy fay. wala yàlla mooy fay sénégalais yi amuñu àjjana amuñu safara xaalis la ñor bu ñu la mën a may ku la mere na ko téye mais Pape Hann dafa war a réagir te dinaa ko wax ne ko sa réaction bu mu doon ne ci rajo yeeg télé di wax demal takk mbaatu man loolu laa gëm demal takk mbaatu génne ko ci pecc meeg bi ñu séen ko mu sa ni benn jigéen inde la bu jógee fële mbaatu sénégalais la fii la ndeyam dëkk bàyyam dëkk fii bu leen ñu fontoo bu ñu kenn fontoo na ko takk bu ko nobee man loolu laa dëgg kon yaakaar naa oustaz Pape Hann ñu ngi lay seetaan ñu ngi dégg li nga wax nee na daal bu ko nobee na ko takk. Ah. waaw mais imam tey nag euh, bu ñu ci wàllu actualité beeg wàllu yooyu noonu dañ dañ fi dikkoon la fois passée dikkoon wax ci wàllu am sa ànd sàmm jikko yi mm-hmm. nga am ay révélation yoo ci def. wane woon sa position mu xaw a bett ñu bari ñoo xamante ni ci internet la ci commentaire boo seetloo ñu bari seen réaction dañ naan da a bett est-ce que oustaz mën nañoo gis mën nañoo mën nañoo fàttali tamit sa position ci ànd sàmm jikko yi ba xam yow ci ñoom nga ànd wala àndoo ci ñoom. ànduma ci sàmm jikko yi bokkuma ci ñoom bokkuma ci mouvement bii. ànd sàmm jikko yi Babacar Mbour jiite. mais bokkuma ci bokkuma ci ak ànduma ci am na différence. bokkuma ci ànduma ci. àndoo parce que ñoom wàllum homosexualité la ñuy la ñuy la ñuy la la ñuy la ñuy la ñuy def la ñuy la est-ce que yow tamit du loolu li ñuy daax yow ci position bokk wala. ànduma bokkuma ci ñu koy xeexal bokkuma ci ñi leen di favoriser bokkuma ci ñu koy dund. mais ànd sàmm jikko yii man di Sénégal li ñuy def ànd ma ci bokk ma ci te danaa ko dénoncer dama koy wax publiquement mooy ñoom dañuy politique ñun nag def nañ suñu organisation te di ngeen ko gis de danañ rassembler dajale mbooloo ànd sàmm jàmm ji Sénégal lañu la ñu woote parce que waaw imaam ànd sàmm jikko yi ñoom dañoo jug ngir xeex góor jigéen ñi yow boo jugee contraire leen ne ñoom dañuy politique est-ce que sénégalais ñoom duñ xalaat ne yow yaay politique wala sax est-ce que duñ xalaat ni góor jigéen ñi ci jëm seen jëm bopp ñoom ñoo la ngeen ngir nga xeex ak man yàlla dogal na sax xaw ma benn góor jigéen man xaw ma benn góor jigéen ci Sénégal xaw ma benn góor jigéen bitim réew man góor jigéen bu ma gisoon xaw ma la sax li ma wér te wóor mooy xam naa ni ànd sàmm jikko yii honnêtement et sérieusement dañuy xeexalu ñoo askanu sa ñun nag dootuñu nangu day leer ñun dootuñu nangu ba ñu dalee songu àll bi ñun di dugg ci ay gàmmoo ay conférence di daj lu ne ci ay daayira loolu boobal léegi vingt ans ñu xëy benn mbooloo jóge fee dajale seen bopp nen signé sëriñ Mountakha signé na sëñ Babacar signé après ñun dañuy duñ ko nangu dañuy politique mais ñun li ñu jaaxal mooy kilifa diine ñoo tamit dañoo dañoo rallié ci ànd sa amul jikko yi léegi boo jukkee di tàkkale ana sàmm jikko yi est-ce que du tamit kilifa diine yi ñoom it yaa ngi leen di yaa ngi leen di yaa ngi beneen sax maanaam kilifa diine yi ànd sàmm jikko yi liñ demee sëñ Muntaxa signéer leen ci ànd sàmm jikko yi noonu la sama mbooloo ak ñi ma àndal di demee ñu signéer ñu ci ànd sàmm jàmmi senegal mais loolu tamit est-ce que kilifa diine déedéet parce que Sénégal dañoo war a xam li xew li ma bëgg leeral ci bopp nit ñi mooy ànd sàm jikko yi c'est ça la vérité. mais est waxuma ko nii rek làmbatu. non da nga cee xam kenn kuy politique. ah bien sûr. ba wax ko jot. xam naa ci ñuy politique parce que ba toog naa ci ñoom débat. Hmm. pare ñu ne ma rejoindre ñu. man leen fu ma leen di rejoindre ñu ne ma ci biir association bi ñu nekk man leen fu leen nekk ñu ne opposition la.